yi ak ni mu baaxe woon ni mu ragale yàlla ni amee xam-xam ak ni mu doon yonente bi dañoo nga wan ñu ci ay mbindam ci ay liggéeyam loolu nan lañ ko mën a comprendre nga xam ne kon ñëpp yëg nañ ne donte xamaguñ ko ne seen intérêt ak fa ñuy jariñoo ci sëñ Tuubaa la ne ndax amaguñ nañ ñu leen ko mën a wan ndax amaguñ nañ ñu leen mën a xëcc ci loolu loolu tamit beneen liggéey la looloo tax ñuy am yaakaar ci caravane bi niñ ko tàmbalee di ñaan mu jëm kanam ba bis ñëw ñu ne caravane maa yomba mu mel ne màggalu Touba fu ne ci àdduna bi avion yi di fa jóge di gëstu sëriñ bi nga xam ne bu ñëwee ci bis bi danañ gis ay junni junni nit di dugg ci diine jaare ko ci keppaaru sëriñ Touba loolu ñu ngi koy ñaan yàlla te mën na ko ci barkeb sëriñ Touba temu ren bi nag def nañ ko thème boo xam ne ci ñett langue yëpp lañ ko def nga xam ne ñeneen ñi nga xam ne dégguñu wolof ñi jamono jii may wax ñi ngi ñuy suivre en direct dugal naa ko seen groupe yi ñoom ñëpp ñu ngi koy suivre mooy addaawatu istimraariyatu daawati taddiidiya fii fajri xarnin jadid la continuité de la revivification de l'islam par Cheikh Ahmadou Bamba à l'aube de ce tout nouveau siècle musulman. The continuity of the revivification of Islam by Sheikh Ahmadou Bamba at the dawn of the new Muslim century. muy Serigne Touba dafa ñëwoon yeesal l'islam ci ndigalul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam barke bii ñuy dund kenn ku ne di ci yëg sa bopp ci liggéey bii la jóge diine jii ñu am ba nit ñi xeemeem ñu ci liggéey boobu la jóge jàmm jii ñu am ci liggéey boobu la jóge woo gi mu woo nit ñëpp ngir ñu ñëw rejoindre ko ci liggéey boobu la jóge ñu ne nag yeesal googu mu yeesaloon nan la war a continuer ndax gis nañ ne bi mu fi jógee ak léegi téeméeri at yi mat na te kenn ku ne xam na ne yonte bi sallallahu wa sallam waxoon na ne bopp téeméeri at bu ne suñu boroom dana yabal kuy beesalaat diineem léegi nag ay jàngat war a ñëw nga yëg ko walla nga bañ koo yëg màggalu daaru xudóos gii la té la sëriñ Tuubaa bam ñu làqoog léegi mat téeméeri at kon beesal faaw mu am kan moo koy def ak ku du def sëriñ bi xam na ko léegi nag ñu war a laaj boroom xam-xam yépp dañ ne mu jaddit kiy beesalaat mën naa nekk kenn nit mën naa nekk mbooloo am ñu ne mu nekk kenn nit moo gën a lëng waaye am ñu ne mën naa nekk mbooloo loolu ab équation la waaye sëriñ Tubaa tontu na ko dafa ñaan suñ boroom mu may ko ak njaboot goo xam ne la ko fi indi woon mu koy beesal ñoom danañ ko continuer kon sëriñ bi tontu na ne yeesal gi mu doon def ak njabootam ñoo koy continuer fu ñu leen tudde tudd aw turam muy benn ñaareel bi sëriñ Touba yàlla da ko garantiral mbiram ne day wéy du dagg indi na nii fii abadin mu mukarramu ba faw yàlla damay teral ñetteel ba xasiida gi mu mujj a bind da ca bind lu leer nàññi loo xam kenn du ko taawil dane ginnaaw bi ma bindee mbind mi ñeenti téeméeri at yi ci tege maay dëkkee la maay dëkkaaleeg yàlla ci di leen xëccal njariñ di leen dàqal lor ñeenti téeméeri at ginnaaw xasiida gi muy xaatimatul munaajaat bil xatti loolu nag bu ca yamoon dañ naan mbirum baatin la waaye sëriñ tubaa da caa teg lu leer fit duniyaa la wax ci àdduna koo xam ne ni yaa ngi làqu ji war a làqu suñuy bët war a wuti sa boroom nga ne maay dëkkaaleeg yàlla ci àdduna ci ñeenti téeméeri at yi fi des lépp luy njariñ maa leen koy xëccal lépp luy lor maa leen koy jiñal kon kooku xam na bopp kon loolu dañ ci xame ne am nañ mission ñeenti téeméeri at yi des kon 2024 bii téeméeri at yi ñëwaat ak téeméeri at yi ñëwaat ak ya ca toppaat ak ya ca topp yooyu yëpp sëriñ bee ko moom kon ñun am nañu sas waxtaan wi daanaka maag sëñ Ahmadou démb ba tey ci lañ ne nee naa ne waxtaan wi moom mënta àgg ndax li ci nekk dafa bari te bu dee sëriñ tubaa dong nga ciy liggéeyal faaw boo koy wax murid yi yëg ko mënta ñàkk sëriñ bi yàlla da koo jox xol yi man de ba may ba may wax sëñ Cheikh naa nee naa ko de man bu may wax sëriñ bi li ma koy seereel mooy xamatuma ku toog ñaar daal danaa ko sàmmoonte du ma wax ngir ayib kenn du ma ñàkk teggi kenn jàngale faaw danaa ko wax te sëriñ bi lim jàngalee boo ko waxee faawu nit ñi bëgg la faawu day neex faawu nit ñi dañ koy jël. kon nag ginnaaw mbokk yeeg a sàkku dañ woon ñu njëkkee ci français bi donte mbooloo mi dégg nañu wolof waaye nañ bàyyi xel ne jamono jii am na ñuy suivre lii dafay des te yaakaar naa déwén lay raw anglais bi nag nañ ko bëggee woon duñ ko mën a def discours donte préparer naa français bi ak anglais bi wolof bi nag laa gën a yaatal lool waaye dañuy def français bi anglais bi ñu def ko sous forme de plateau soxna maam Assa mii moom Serigne Fallou dana ca bokk nga xam ne sous forme interview lay ne ñu tontu américain yeeg anglophone fu ñu ko gisee xam ne lii sëñ Touba lu neex la nañ dem gëstu ko ci buñ ñëwee ñu wax leen kan mooy sëñ Touba ñu mën cee jaaree dugg ci diine loolu mooy liggéey bi. bu ma doon kaneen ne ñun murid yi murid yi liggéeyuñ boobaa wa manees na ko wax dara waaye bu ma bokkee ci murid gi ne ñun de li ñu war a def bu doonoon téeméer ñaar lañ defagul kenn du ma mën a wax dara lu tax ndax longoor laa bokk maam moor Jaara borom saam di sama maam soxna Anta Njaay Mbàkke di sama maam sëñ Mbàkke soxna moom maam Abdul Xaadir di sama maam kon ci laa bokk sëñ Cheikh Gaynde ma nag la mu waxoon loolu laa gëm mbir boo ci bokkee neex dugalu la ci naqari génnewu la ci loo ca gis te am ca xalaat sañ nga ko wax li ma defee listixaar ci yoon wi nag maa ngi koy wax sëñ Ahmadou léegi xasiid ak sëriñ Tubaa gii di mu xaddamatul xidma nga xam ne bi mu ko bindee rek ci la contrat bi wàcc nga xam ne moo sabab yoonu gabaw yi li ma gëme ne sëriñ bi nangul na ma yoon wii ndax jëppewu ko tukki ndax man sëñ Cheikh naa xam na dem naa fu ne France laa doon jànge ba am sama diplôme ginnaaw bi ma jàngee njàngum diine am na dëkk yu ma yu ma dem jërëjëf yàlla la sëriñ bi fay te barke bi wàcc ci yow ak ñun ñëpp ma ne ko dama koo jàppe jihaad ndax tubaab bi biñ koy indi fii jàmm taxutoon ñu indi ko fi de bu ñu amoon lañ bëgg yàlla xam na du dellu Sénégal kon ñun bu ñu yàlla jaralee bañ jóge Sénégal ak Gabon nam sore ndax Sëñ Tuubaa li xew ci Gabon lépp moo ñu ko wax contexte bi mu fekkoon Gabon ixraajuhu ilal bilaadi naa yi nee na Gabon gu sori ga Gabon gi nga xam ne bi ma fi wàccee dama wéet fekk mu fi kenn ku bëgg yàlla ay kàccoor rek laa fekk xoolal bi ñu wàccee aéroport tey li ñu fi daj waaye damaa toog ne di jàngat ma ne murid yi de xam naa sëñ Tuubaa daal yàlla fay na ko kenn ku ne da nga koo def bànneex ne ñu barkeeloo ko ci li sëriñ bi dajoon nga xam ne 6 ba 10 heures mooy ñun ñëpp ña nga fa dafa am mbokk yoo xam ne nii biñ may woo ci kanamu sëñ Cheikh naa sa mii la ne ma xasiide gi di mu xaddamatul xidma de dañoo bëggoon nga traduire ñu ko ci anglais ma ne leen de xam-xam bi de yàlla def na ko fi ci barkeb seriñ Touba danaa ko man waaye ci nàngami weer ma tàmbali bi ma tàmbalee benn bis laa ànd sëñ Cheikh naa Bousso mi ñu jëm hôpital Matlaboul Fawzeyni bi ñu wàññiku la ma ñooña woo ne ma nañ tàmbali liggéey bi ma tàmbali ko am ay semaine caravane maa yomba ñoom ci boppam ñu ñëw Touba ne ma dañoo bëggoon nga bokk ci commission culture bi te kenn ku ma xam ko ne man ak ni mu baaxe woon ni mu ragale yàlla ni mu amee xam-xam ak ni doon yonente bi dañoo bëggoon nga wan ñu ci ay mbindam ci ay liggéeyam loolu nan lañ ko mën a comprendre nga xam ne kon ñëpp yëg nañ ne doonte xamaguñ ko ne seen intérêt ak fa jariñoo ci sëñ Tuubaa ne ndax amaguñ nañ ñu leen ko mën a wan ndax amaguñ nañ ñu leen mën a xëcc ci loolu loolu tamit beneen liggéey la looloo tax ñuy am yaakaar ci caravane bi niñ ko tàmbalee di ñaan mu jëm kanam ba bis ñëw ñu ne caravane maa yomba mu mel ne màggalu Tuubaa fu ne ci àdduna bi avion yi di fa jóge di gëstu sëriñ bi nga xam ne bu ñëwee ci bis bi danañ gis ay junniy junniy nit di dugg ci diine jaare ko ci keppaaru sëriñ Tuubaa loolu ñu ngi koy ñaan yàlla te mën na ko ci barkeb sëriñ Tuubaa temu ren bi nag def nañ ko thème boo xam ne ci ñett langue yëpp lañ ko def nga xam ne ñeneen ñi nga xam ne dégguñu wolof ñi jamono jii may wax ñi ñuy suivre en direct dugal naa ko seen groupe yi ñoom ñëpp ñu ngi koy suivre mooy ad daawatu istimraariyatu daawati taddiidiya fii fajri xarnin jadid la continuité de la revivification de l'islam par Cheikh Ahmadou Bamba à l'aube de ce tout nouveau siècle musulman. The continuity of the revivification of Islam by Sheikh Ahmadou Bamba at the dawn of the new Muslim century. muy Serigne Touba dafa ñëwoon yeesal l'islam ci ndigalul yonante bi sallallahu alayhi wa sallam barke bii ñuy dund kenn ku ne di ci yëg sa bopp ci liggéey bii la jóge diine ji ñu am ba nit ñi xeemeem ñu ci liggéey boobu la jóge jàmm jii ñu am ci liggéey boobu la jóge woo gi mu woo nit ñëpp ngir ñu ñëw rejoindre ko ci liggéey boobu la jóge ñu ne nag yeesal googu mu yeesaloon nan la war a continuer ndax gis nañ ne bi mu fi jógee ak léegi téeméeri at yi mat na te kenn ku ne xam na ne yonte bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ne bopp téeméeri at bu ne suñu boroom dana yabal kuy beesalaat diineem léegi nag ay jàngat war a ñëw nga yëg ko wala nga bañ koo yëg màggalu daaru xudóos gii la té la sëriñ Tuubaa bam ñu làqoog léegi mat téeméeri at kon beesal faaw mu am kan moo koy def ak ku du def sëriñ bi xam na ko léegi nag ñu war a laaj boroom xam-xam yépp dañ ne mu jaddit kiy beesalaat mën naa nekk kenn nit mën naa nekk mbooloo am ñu ne mu nekk kenn nit moo gën a lëng waaye am ñu ne mën naa nekk mbooloo loolu ab équation la waaye sëriñ Tubaa tontu na ko dafa ñaan suñ boroom mu may ko ak njaboot goo xam ne la ko fi indi woon mu koy beesal ñoom danañ ko continuer kon sëriñ bi tontu na ne yeesal gi mu doon def ak njabootam ñoo koy continuer fu ñu leen tudde tudd aw turam muy benn ñaareel bi sëriñ Touba yàlla da ko garantiral mbiram ne day wëy du dagg indi na nii fii abadin mu mukarramu ba faw yàlla damay teral ñetteel ba xasiida gi mu mujj bind da ca bind lu leer nàññi loo xam kenn du ko taawil dane ginnaaw bi ma bindee mbind mi ñeenti téeméeri at yi ci tege maay dëkkee la maay dëkkaaleeg yàlla ci di leen xëccal njariñ di leen dàqal lor ñeenti téeméeri at ginnaaw xasiida gi muy xaatimatul munaajaat bil xatti loolu nag bu ca yamoon dañ naan mbirum baatin la waaye sëriñ Tuubaa da caa teg lu leer fi duniyaa la wax ci àdduna koo xam ne ni yaa ngi làqu ji war a làqu suñuy bët war a wuti sa boroom nga ne maay dëkkaaleeg yàlla ci àdduna ci ñeenti téeméeri at yi fi des lépp luy njariñ maa leen koy xëccal lépp luy lor maa leen koy jiñal kon kooku xam na bopp kon loolu dañ ci xame ne am nañ mission ñeenti téeméeri at yi des kon 2024 bii téeméeri at yi ñëwaat ak téeméeri at yi ñëwaat ak ya ca toppaat ak ya ca topp yooyu yépp sëriñ bee ko moom kon ñun am nañu sas waxtaan wi daanaka maag sëñ Ahmadou démb ba tey ci lañ ne nee naa ne waxtaan wi moom mënta àgg ndax li ci nekk dafa bari te bu dee sëriñ tubaa dongu nga ciy liggéeyal faawu boo koy wax murid yi yëg ko mënta ñàkk sëriñ bi yàlla da koo jox xol yi man de ba may ba may wax sëñ Seex naa nee naa ko de man bu may wax sëriñ bi li ma koy seereel mooy xëmatuma ku toog ñaar daal danaa ko sàmmoonte du ma wax ngir ayib kenn du ma ñàkk teggi kenn jàngale faawu danaa ko wax te sëriñ bi lim jàngalee boo ko waxee faawu nit ñi bëgg la faawu day neex faawu nit ñi dañ koy jël kon nag ginnaaw mbokk yee ko sàkku dañ woon ñu njëkkee ci français bi doonte mbooloo mi dégg nañu wolof waaye nañ bàyyi xel ne jamono jii am na ñuy suivre lii dafay des te yaakaar naa déwén lay raw anglais bi nag nañ ko bëggee woon duñ ko mën a def discours donte préparé naa français bi ak anglais bi wolof bi nag laa gën a yaatal lool waaye dañuy def français bi anglais bi ñu def ko sous forme de plateau soxna maam Assa mii moom Serigne Fallou dana ca bokk nga xam ne sous forme interview lay ne ñu tontu américain yeeg anglophone fu ñu ko gisee xam ne lii sëñ Touba lu neex la nañ dem gëstu ko ci bu ñëwee ñu wax leen kan mooy sëñ Touba ñu mën cee jaare dugg ci diine loolu mooy liggéey bi. bu ma doon kaneen ne ñun murid yi murid yi liggéeyuñ boobaa wa manees na ko wax dara waaye bu ma bokkee ci murid gi ne ñun de li ñu war a def bu doonoon téeméer ñaar lañ defagul kenn du ma mën a wax dara lu tax ndax longoor laa bokk maam moor Jaara boroom saam di sama maam soxna Anta njaay Mbàkke di sama maam sëñ Mbàkke soxna moom maam Abdul Xaadir di sama maam kon ci laa bokk sëñ Cheikh Gaynde ma nag la mu waxoon loolu laa gëm mbir boo ci bokkee neex dugalu la ci naqari génnewu la ci loo ca gis te am ca xalaat sañ nga ko wax li ma defee listixaar ci yoon wi nag maa ngi koy wax sëñ Ahmadou léegi xasiid ak sëriñ Tubaa gii di mu xaddamatul xidma nga xam ne bi mu ko bindee rek ci la contrat bi wàcc nga xam ne moo sabab yoonu Gabon wi li ma gëmee ne sëriñ bi nangul na ma yoon wi ndax jëppewu ma ko tukki ndax man sëñ Cheikh naa xam na dem naa fu ne France laa doon jànge ba am sama diplôme ginnaaw bi ma jàngee njàngum diine am na dëkk yu ma yu ma yu ma dem jërëjëf yal la sëriñ bi fay te barke bi wàcc ci yow ak ñun ñëpp ma ne ko dama koo jàppe jihaad ndax tubaab yi biñ koy indi fii jàmm taxutoon ñu indi ko fi de ñu amoon lañ bëgg yàlla xam na du dellu Sénégal kon ñun bu ñu yàlla jaralee bañ jóge Sénégal ak Gabon nam sore ndax sëñ Tuubaa li xew ci Gabon lépp moo ñu ko wax contexte bi mu fekkoon Gabon ixraajuhu ilal bilaadi naa yi nee na Gabon gu sori ga Gabon gi nga xam ne bi ma fi wàccee dama wéet fekk mu fi kenn ku bëgg yàlla ay kàccoor rek laa fekk xoolal bi ñu wàccee aéroport tey li fi daj waaye damaa toog ne di jàngat ma ne murid de xam naa sëñ Tuubaa daal yàlla fay na ko kenn ku ne danga nga koo def bànneex ne ñu barkeeloo ko ci li sëriñ bi dajoon nga xam ne 6 heures ba 10 heures mooy ñun ñëpp ña nga fa dafa am mbokk yoo xam ne nii biñ may woo ci kanamu sëñ Cheikh naa sa mii la ne ma xasiide gi di mu xaddamal xidma de dañoo bëggoon nga traduire ñu ko ci anglais ma ne leen de xam-xam bi de yàlla def na ko fi ci barkeb seriñ Tuubaa danaa ko man waaye ci nàngami weer ma tàmbali bi ma tàmbalee benn bis laa nag sëñ Cheikh naa Bousso mi ñu jëm hôpital Matlaboul Fawzeyni bi ñu wàññiku la ma ñooña woo ne ma nañ tàmbali liggéey bi ma tàmbali ko am ay semaine caravane maa yomba ñoom ci boppam ñu ñëw Touba ne ma dañoo bëggoon nga bokk ci commission culture bi te kenn ku ma xam ko ne man kenn ku ne doomi soxnaa koo man doon sàkkul xam-xam ba am ko jëfe ko kem sa kam kàttan doyloo sëriñ tubaa lu war a ñëw dana ñëw lu ñëwut nga bàyyi ko fële xam ne sëriñ bi tànnal la ko man noonu mooy sama doxin te ba ma ko doxeek léegi gis naa ci ne sëriñ bi wax dëgg yàlla maa ngi koy sant kon ginnaaw xasida gi nga xam ne bi ko sëriñ bi defee ci la yoonu Gabon wi feeñ suñ borom dimbale ma ba tàmbali ma ca liggéey ba ba nii maa ngi koy def tradition maa ngi ci maa ngi ci xarful xaa jeexal naa ko kon bu yoonu Gabon wii feeñee mission laa koy jàppe kon nag war nañ fee wax ci làng yépp loo xam ne nii ku fekkiwut jataay bi boo ko seetaanee danga nga waa ana waa bi nan la ñeen mën a jote li ngeen doon wax nuñ ko mën a àggalee loolu mooy liggéey bi waxtaanu murit nag organiser lool du ko yomb ndax danga àgg foo xam ne ni danga ci am yëg-yëg faaw nga wax ko waaye bu ma waxee lii may bëgg a wax nag ma dugg ci français bi muy bisub tey àllarba fukki fan ak ñett ci weeru gàmmu la Sëriñ Tuubaa wàcc ci dëkk bi ñu wàcc tey ba mu wàccee ca saasa dafa jéego ñetti jéego julli ñaari ràkk tubaab yi yóbbu ko ca campement ba waaye teewut guddi wala bu ma see am jot day dem ba ci montagne Sainte Gué wéet fa ak boroomam di jaamu yàlla di xalaat boroomam mooy fii ñu waree jël jullee suba ngir dem maa yomba sëñ jibi tey ci suba maa ngi naan ko waaw ah, maa yomba moom bu ñu demee kañ lañu àgg mu ne ma 6 heures du matin de 23 heures jëmm ni lañu àgg ma ne ko xanaa dangaa ngaa juum mu ne loolu de la ma ne ko ah kon de ñun war nañoo xam ne sëriñ bi ba muy dem dugg ci ay bato yor ay gaalam metti woon lool te bañ na ko fa cëpp lenn lu mu àndal defuñ ko maanaam lenn lu ñu war a mën a terele doomu aadama sëñ bi defaruñ ko maa yomba am na fa juróomi at yoo xam ne ni ab néeg tiimu ko day xool ku toll ni sëñ Tuubaa ak dara daraja jam am nga yóbbu ko ci barab bu bon bàyyi ko fa noonu ab néeg dara waru ko mu nangu koo muñ ngir yàlla ñun kon lu ne war nañ koo mën a muñ nga xam ne mbaar mam doon nekk sax moo ko doon defal boppam nga xam ne taw bi di sotti ko ci kawam ci koo xam ne ni mës a miinub taw jëmm ju tuuti nga xam ne bu daa taw sax day mujj li koy yitteel rek mooy téere yi li mu taggee yonent sallallahu alayhi bu mu tooy histoire yooyu yëpp duñ ci dugg ba mu dem ci kër kooka ba bañ fanaanal ko ci waañ nga xam ci waañ la mujj fàkkal ko mu fanaan fa ba suba jot nga xam ne sëriñ bi kon bi mu ñëwee Libreville am na fi ñetti weer am na fi ay weer sax laay wax ay weer ñu yóbbu ko maa yomb mu am fa juróomi at làmbaree nag la ca topp lépp loolu duñ ci ñëw nga xam ne boo xoolee tukki bi lépp juróom-ñetti at yu manqué ay weer mu motlee ko Mauritanie muy fukki at li muy faral di wax naan xisra sinina bi xidam waaye nag bala maa jàll dama bëggoon kenn ku ne teewlu ngir jëmmi yàlla ñu ñaanal Baye fàllu Serigne Fallou Bousso li tax ma ne ñu teewlu ñaanal ko mooy am na cër te sëriñ tubaa fàttewu ko liggéey bi ko gën a ñor Serigne Touba taw feexal ko bam organise ko nii barke boobu moo tax ñun ñii ñëpp ñu mën a ñëw tey loolu la yonent bi sallallahu doon wax naan ku faate ko ne sa jëf yépp dagg ba mu des jëf joo xam ne ni da ko fee bàyyi muy continuer lu mel nii lépp ci ay xasida lépp luñ fi def ci lu baax lépp lu fi nit dolli ko sëñ Tuubaa Baay Faalu dana ca am tiyaaba ju tol noonu te du wàññi ca ka ko def dara loolu mooy njariñu lépp looy def te yàlla tax na nga am ak dëggu te nga def ko te yàlla tax fa mi àgg nag suñ borom a koy àggale ku gis lii tey xam ne am na barke ku gis lii xam ne yëf yi mën naa àgg foo xam ne moom sax foog ko woon loolu nag Serigne Touba moo ñu ko jàngal Serigne Touba danaa wax ne yàlla dafa neex a liggéeyal naqaree liggéeyal li tax mu naqare liggéeyal mooy boo koy liggéeyal day mel ne yëgut ne yaa ngi koy liggéeyal léegi nga gis kuy sonn lool dara waaye bu demee bay fay du xoolati ba xam ndax yaa ngi jëf walla jëfoo ndax yaa ngi dund wala dundoo day fay rek sa njaboot di ci tedd ba yowmal xiyaam kon képp ku fi yëkkatee lu baax na ci dëggu te def ko te yàlla tax te tàmbali kon kenn ku ne ku mën a jàng fukki lixlaas ak benn nga jàng ku mën a def ay astaxfirullaa loo ci man nga def ko ku mën a def sallallahu alayhi wa nga def ko nga ñaanal sëriñ bu sa moomu liggéeyal bii mu doon liggéeyal sëñ Touba la cay barke ki ngërëm ki leer sotti ko ci kawam moo ñam fa nekkal ñëpp te barke boobu wàccaat fii ci Gabon mbokk yi nga xam ne ñooy ay murit saadiq àndoon ak moom te kóllëre gañ fasante woon ak moom ba tey feccikuwut bu ma tuddee sëñ Seex Mbeng doy na ndax dana yóbbaale ñu des ndax sëriñ Seex Mbeng damay faral di wax sëñ Seex naa boo koy xool do doo xam noo koy qualifier ndax da ngay xam ne ak bëgg rek moom li muy wax dangay xam ne lii lu bëgg la da koo gëm tolool loolu rek mooy àggale mbir loolu nag yàlla royaat ci ñun ñëpp ci barkeb Serigne Touba ci barkeb sëriñam ba maam Cheikh Ibra kon ñu ñaanal Serigne Fallou kon nag xam naa ñu xam ne waxtaan wi thème bi nga xam ne moo ñu tax a ñëw commencé guñ ko li ma yaakaar nag yaakaar naa maa yomba lañ koy commencé dëgg wax ca ndax deux heures de temps yi moom faw dana ko mat bu mu ëpp ko ndax niñ ko bëgg a doxale ak sëñ Ahmadou liñ naan de manière interactive lañ koy def may wax muy wax may wax muy wax ba keroog muy jeex nga xam ne boobaa nit ñi ci la ñu gën a mën a teewlu di la bàyyi xel te boroom xam-xam bu toll ne sëñ Ahmadou ak ndongolu mel ne man bu amee teey yaakaar naa bu ñu ko bokkee xam-xam dana fa génn ndax ñun ñëpp sëriñ Tubaa dong la ñu dàkk kon bu ma defee français bi ma jox sëriñ Ahmadou mu def commentaire ñu wéyal programme bi bu maa yombaa nag ñu àggale ci des bu dee anglais beeg français yi tamit yeneen plateau yi nga xam dañ ko organiser ñu àggale ko fa incha allah asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu sëriñ basiru mbàkke fils de sëriñ muntaxa qui est le de sëriñ muntaxa le leader de tous les mourides pour dire le khalife général des Mourides ici présent. Les chefs religieux présents ici en ce jour de commémoration venus du Sénégal et d'ailleurs pour accompagner les activités de la caravane de, Moyom, Mayomba sur les traces de Cheikh Ahmadou Bamba. Mes chers compatriotes ici présents, Monsieur l'ambassadeur, son Excellence, Monsieur Chao, ainsi que la forte délégation qui l'accompagne. Messieurs les organisateurs de cette caravane initiée par Feu Serigne Fallou Bousso Gabon, que Dieu agrée ses œuvres et le couvre de sa vaste miséricorde. Chers Gabonais, chères Gabonaises, le thème de cette conférence s'intitule La continuité de la revivification de l'islam par Cheikh Ahmadou Bamba à l'aube de ce tout nouveau siècle musulman. Le cheikh nous a quittés en l'an 1346 de l'Hégire. Cette année 1446 de l'Hégire qui commence en ce mois béni de Muharram, premier mois du calendrier musulman, est la centième année. Car le cheikh faisait référence toujours au calendrier musulmans. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa ala khayri khadimihi wa sallam avait dit dans un hadith authentique qu'à chaque début de siècle, Dieu enverra un revivificateur de l'islam. Cela passera naturellement par la réhabilitation des enseignements du Coran et de la Sunna du prophète par l'incitation des gens à l'adoration de Dieu par la bonne pratique et le bon comportement vis-à-vis -vis de ses pères. C'est ainsi que le cheikh avait proclamé à Mbacké Kadior un vendredi 27e jour du mois de Ramadan que le prophète lui est parvenu en état de veille lui demandant de changer la méthode classique d'enseignement par une autre plus pédagogique et plus adaptée, alliée à une éducation spirituelle tarbiya, en privilégiant la pratique en lieu et place d'un enseignement théorique et en réincarnant l'islam dans son originalité. À son époque, le Sénégal comme la quasi-totalité des pays de la sous-région, était confronté à une crise multiforme, à la fois politique, économique, culturelle, sociale et religieuse. Il avait donc pour mission de remédier à tout cela par la mise en place d'un nouveau projet de société qui a été illustré dans son Hassida son livre intitulé Madlabul Fawzayni qui signifie la quête des deux bonheurs. Un chassida dans lequel il expose son projet formulé sous forme de prière. Donc un projet de société basé sur la foi et la confiance totale en Dieu qui ont toujours été ses armes en face de l'ennemi. Dans un autre lieu, le cheikh avait déclaré à Mbacké Kadior amarani rabbi bi an usarriha bi annani malazun wa mafdaun faman arada al khayra fi kiltayi daarayni falyaluz bi mon m'a ordonné de déclarer et de proclamer haut et que je suis un refuge quiconque veut le bien dans les deux mondes doit chercher refuge auprès de moi. Aussi est-il bon de connaître le contexte de l'avènement du Cheikh pour mieux appréhender la teneur de sa mission. En fait, le Cheikh maîtrisait les sciences religieuses, humaines et sociales, même les plus pointues de son époque, avec une pratique et une bonne conduite remarquables dans son vécu quotidien mais aussi une lumière divine qui jaillissait, ce qui avait suscité de la sympathie, mais aussi de la jalousie. Les gens accouraient de partout pour venir le rejoindre, car ils avaient été mis au parfum du bien, des bénédictions et des innombrables bienfaits émanant de lui envers toutes les personnes. Ce qui a provoqué la colère et le courroux des chefs traditionnels, de certains chefs religieux qui voyait en lui un redoutable concurrent direct. Les colons et les missionnaires voyaient en lui quelqu'un qui pourra bel et bien contrecarrer leur projet. Parmi les problèmes qui sévissaient dans la société et auxquels il fallait apporter une solution, on peut citer en premier lieu l'hypocrisie sociale. c'est-à-dire l'hypocrisie de certains hommes religieux qui occultaient la réalité de l'enseignement de l'islam pour plaire aux princes de leur époque. Se taire devant l'injustice et la compromission envers les exactions contre les pratiques religieuses. Deuxième phénomène, la complicité des religieux avec les tenants des pouvoirs temporels, les rois et le colonisateur. Troisième phénomène, la propagation de l'adultère et le phénomène des femmes montrant ce qu'elles devaient couvrir de leur corps devant les hommes selon les enseignements de la vraie religion musulmane. Un autre phénomène, la perte de repères chez la majorité des populations. Et le cheikh est venu pour leur redonner ce sentiment de fierté et de dignité qui faisaient défaut. Donc Cheikh Ahmadou Bamba commença à déranger et à gêner le système en place, ce qui lui a valu des démêlés avec l'administration coloniale qui a, en fin de compte, décidé son exil forcé au Gabon. Le cheikh nous décrit dans son chassida intitulé Assirou asiiru maal abraari iina asiiru wa zanna al ida anni hunaka asiiru lorsque je marche je marche avec les saints mais les colons les blancs mes ennemis de l'époque pensaient que j'étais leur prisonnier donc lui il jouissait d'une liberté totale intérieure. Il disait dans ce khasida Qusuuri qalat wal ahlu anni tafarraqat li madhi alladhi hanhul madihu qasiru Mes demeures ont été délaissées, ma famille dispersée. Tout à cause de mon engagement pour œuvrer au profit du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa ala xayri xadimihi wa sallam œuvrer pour revivifier l'islam dans son originalité œuvrer pour le bonheur et le salut des communautés dans les deux mondes donc Cheikh Ahmadou Bamba comme tout être humain souffrait il était peiné par les torts qui lui ont été causés à travers son exil forcé vers les terres lointaine, pour ne pas dire hostile du Gabon pendant plus de sept ans. Il a par la suite été exilé en Mauritanie pendant trois ans, espérant que le complexe d'infériorité ait raison sur l'engagement des fidèles envers lui. Plus tard, faute d'avoir atteint leur objectif, il sera amené à Thiène Djolof, un territoire désenclavé à l'époque, pendant cinq ans et enfin à Diourbel, Ndiarem, une ville au cœur du Bawal où il était placé en résidence surveillée pendant quinze bonnes années. L'objectif de l'y amener n'était rien d'autre que de faire perdre à ses disciples les valeurs qui leur ont été déjà inculquées. Les colons pensaient que l'environnement de Diourbel n'était point propice pour mener à bien son projet civilisateur et libérateur. Ce fut en septembre 1895, le 2 octobre, qu'un simulacre de procès a été organisé par l'administration coloniale de l'époque, dont le seul but était d'accabler le cheikh et de l'exiler au Gabon, le début de tous les sévices, de tous les maux et de toutes les manigances. Tout cet acharnement avait pour but de mettre un frein au projet de société et d'éducation spirituelle initié par Cheikh Ahmadou Bamba. À côté de la réticence du colonisateur, il y avait aussi la jalousie des autres chefs religieux de l'époque qui voyaient leurs disciples rallier la cause du Cheikh. Cheikh Ahmadou Bamba, à l'instar de son bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa ala khayri a lui aussi été exilé. Dieu nous raconte dans le Coran wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituuka aw yaqtuluuka aw yukhrijuuka wa yamkuruna wa yamkuru llahu wallahu khayrul et quand ceux qui ont mécru comploté contre vous pour vous vaincre afin que vous ne quittiez pas la Mecque vous tuiez ou vous exilez ils complotaient et Allah complotait et Allah est le meilleur des planificateurs souratul Anfal verset 30 mais si l'on voit le grand Magal de Touba jour de fête de communion de grands rassemblements jour de rendre grâce à Dieu jour de reconnaissance envers son Seigneur jour de mise en exergue de l'échec du colonisateur devant la réussite éclatante de Cheikh Ahmadou Bamba Si on voit le Magal et le monde qui afflue des quatre continents pour venir à cette action de grâce envers le Seigneur, on voit bien que le résultat de son œuvre, les fruits de son exil au Gabon sont immenses et illimités. À son retour d'exil, dans ces dernières années à Ndiarème, Cheikh Bamba à demandé à tous ses disciples de rendre grâce à Dieu pour les innombrables bienfaits qu'il lui a octroyés et sa victoire éclatante sur ses ennemis ainsi que la réussite de sa mission. Dans l'un de ses écrits, le cheikh parlait à son Seigneur en ces termes. wajal masir yesa jawfal far jawfal mithlal maarini Ô Seigneur, fais exil vers le Gabon Fin de mon séjour au Gabon, un exaucement des vœux, une référence pour l'humanité dans tous les domaines de la vie. Ici, dans ce vers, le cheikh fait référence au fameux proverbe arabe qui dit Kullu saïdi fi jawfil fara. Textuellement, toute la chasse est dans le ventre de l'âne sauvage. Est un vieux proverbe arabe. Comme tous les proverbes, il y a une histoire derrière. Et l'histoire est ceci. Un jour, trois hommes sont partis chasser. L'un a ramassé un lapin. L'autre a ramassé un faon pour dire un cerf. Et le troisième a ramassé un grand âne sauvage. Celui qui, qui a ramassé le lapin Et celui qui a ramassé le cerf était content de la bonne prise qu'il avait obtenue. Et ils commencèrent à se moquer de celui qui a ramassé l'âne. Et ce dernier leur dit, toute la chasse est dans le ventre de l'âne sauvage, c'est-à-dire la quantité et la qualité de ce que j'ai acquis sont bien supérieures à ce que vous avez tous combiné. Ceci se traduit plus clairement par le fait que le Cheikh Ahmadou Bamba détient une réponse à toutes les problématiques qui se posent à l'humanité sur tous les plans social, politique, économique, géopolitique, etc. Cheikh Ahmadou Bamba détient une réponse pour quiconque veut s'élever spirituellement et retourner vers son Seigneur. C'est donc un projet de société qui allie le temporel au spirituel. L'objet étant de faciliter la vie d'ici-bas et celle de l'au-delà et correspond à ce que le prophète de l'islam avait mis en place au sixième siècle et qui a été délaissé par l'usure du temps et des pratiques humaines. Ainsi, Cheikh Ahmadou Bamba a reçu l'ordre du prophète de revivifier cette pratique originale de l'islam, de redonner vie au cœur des adeptes à travers les purs et profonds enseignements du Coran et dans la sunna du prophète, l'élu le plus pur. Malgré tout ce que je viens d'évoquer, c'est-à-dire la séparation du cheikh avec sa famille, l'exil des privations et les privations de liberté, le changement de climat, une pluviométrie 9 mois sur 12, Cheikh Ahmadou Bamba y voyait l'exaucement des vœux de tous les êtres humains. Il disait dans son khassida intitulé Yaad al allahu yansuruni wal xalqu tatbauni fil barri wal baxari za nafin bila darari donc c'est là où réside le message la mission que nous devons porter des bienfaits sans méfaits pour traduire ce on peut dire j'ai la certitude que Dieu m'a aidé et continuera de m'aider. Que toutes les créatures me suivront, venant des mers et des terres, car je détiens des bienfaits dépourvus de tous mes Donc il faut que le message de Cheikh Ahmadou Bamba soit porté par des hommes compétents comme Serigne Ahmadou et qui puissent véhiculer cela dans toutes les langues possibles. moo tax may wax sëñ Ahmadou ne ko ni nga amee diine yàlla na yokk ni nga bëggee sëriñ bi yàlla na yokk ni nga amee xam-xam bu sell yàlla na yokk boo déggoon àng anglais musiba lay doon ndax koo waxal mu dugg ci xolam te danga dugal ay junni ci diine ji war naa koo jàngi jooju damay dama damay xal jox sa boo xam ne nit sëñ Ahmadou Bari dañoo toog di waxtaan ma koy leeral américain yi may jàngal ak ñi may feral ijjëg ñi may jàngal xam téere sëriñ bi di ko wan ni ma koy jàngalee ci la may nettali ne ma mas naa dem ci benn colloque boo xam dañ ko ca yabaloon ci turu yoonu murit waaye ba demee ba fa jógee la ne faaw ma jaayante jàng àngale ngir tasaare njàngalem sëriñ ndax booba suñ yeneen mbokk surtout ñaseen yi ñoo fa nekk dégg àngale ñoo doon yëkkati xëyit xësid ak bàyyi ñas yi di ko leeral képp ku fa ñëw ñoom rek ngay waxal ndax ñoom rek fa di gàngale waaye nañu leer ne feeg ñi ngi wax wolof dong bu ñu waxtaan suñu suñu njàngaleem sëriñ bi du weesu Sénégal Gambie ak frontières yi ngir àdduna bépp xam kan mooy sëriñ Tuubaa faaw ñuy wax ci français ci anglais ci arabe ci chinois ci allemand ci yeneen langues yi C'était une seule digression en Wolof, donc retournons à nos moutons. Cette édition de la caravane Mayomba a la particularité de privilégier le savoir et les savants dans le but d'atteindre les vraies cibles. La mission du Cheikh a été accomplie pour l'essentiel au Gabon. Donc il faut que cela se sente au Gabon comme il faut. Mais un long chemin reste à parcourir. Je vais prendre les propos de Serigne Abdul Aziz Mbacké Madialis qui disait que les mourides donnent l'image d'un peuple qui cultive un champ de banane sur une terre dont le sous-sol est rempli de diamants. Pour atteindre l'objectif de vulgarisation de la mission de Cheikh Ahmadou Bamba, il faut éviter les débats partisans ainsi que le fanatisme. Il faut privilégier la cohésion et la communion. À ce titre, Cheikh Ahmadou Bamba, à travers les lettres qu'il envoyait aux disciples lors de son séjour au Gabon, leur indiquait souvent qu'il avait le droit d'utiliser les wird, les ahzab, c'est-à-dire les litanies provenant des autres tariqas et qu'il devait avoir du respect à l'égard de tous les chefs religieux de tous bords. De on peut dire alors cheikh est un don un bien public qu'il a offert à toute l'humanité. En guise de rappel, les moyens utilisés par le Cheikh pour son œuvre de rénovation, notamment l'acquisition du savoir utile, incluant en premier lieu les sciences religieuses, à savoir le tawhid, le, la science de l'unicité de Dieu, le fiqh, la science de la loi islamique, et le tasawuf, la science pour purifier le cœur, pour en venir aux sciences utiles du monde actuel. En deuxième lieu, la tarbia, l'éducation spirituelle par des moyens adéquats et adaptés selon les individus aspirants. En troisième lieu, la rénovation de la conscience collective, donc une conscientisation régulière et permanente. Et enfin, le khidma. La notion de khidma est une spécificité dans la vision de Cheikh Ahmadou Bamba. Il s'agit du don de soi pour le bien-être de la communauté. Je pense surtout à mes condisciples Baïfal. C'est une action entreprise par la personne sans contrepartie et dans le seul but d'aider le plus grand nombre. Le khidma est toute activité qu'une personne entreprend au profit des créatures pour gagner la satisfaction de son seigneur et pas simplement pour un retour financier ou un intérêt immédiat. C'est une belle qualité que possédait lui-même le cheikh. sammaytani xatan bi abdikal xadim tu m'as définitivement nommé ton plus noble serviteur. Tu es celui qui m'annonce d'éternelles bonnes nouvelles. Au-delà de la prière, il faut que le médecin ait conscience que son métier est un acte d'adoration, un moyen pour lui accéder à son Seigneur. Le tailleur, le commerçant, l'homme d'affaires, le restaurateur vont en faire de même et ainsi de suite. Donc l'action de l'individu s'inscrire dans un cadre d'interaction avec ses concitoyens dont la finalité est l'adoration du Seigneur. Je vais sauter beaucoup de paragraphes parce que le temps nous est compté. Donc, je vais essayer de finir. Donc ceci, je vais sauter beaucoup de paragraphes pour conclure. Oh, ok, on, on, va continuer tout ça à Mayom, Inch'Allah. Donc ceci est un court extrait du message incommensurable de Cheikh Ahmed Bamba. Donc j'invite tout le monde à venir découvrir cette source intarissable de savoir, de bonté et de félicité qui est Cheikh Ahmadou Bamba. Je vous invite à venir vous abreuver dans cet abreuvoir des assoiffés. Nous sommes à votre entière disposition pour ceux qui veulent approfondir leur connaissance de Cheikh Ahmadou Bamba et cela durant tout notre séjour au Gabon. La commission culturelle est aussi prête à prendre le relais pour pérenniser cette action. Je vous remercie. Wa alaykoum assalam jërëjëf sëriñ Baye Dame boo ne borom saam nga ñëpp war koo gëm yàlla na yàgg lii nag li mu des te bari njariñ moo moo tax xam naa ni dañuy fas yéene defi ko fee nga xam ni mooy maayumba kon dañoo bëgg rek wali خلا وسالكنا للخل لي برما يرمى muy Tawfekh jugee